ba ni muy fekki sëñ tubaa loolu it ñu bari war nañ ci bàyyi xel ni maam Cheikh Anta pëseefam ak bëggam sëñ Touba tax na mu fekki sëñ Touba Gabon mm. ba sababu ñibbi si bokk na ci lim ci liggéey moom it waaw mm-hmm. waaw jërëjëf xam nga li nga wax léegi leer na nañ mm-hmm. sëñ Touba du jëf dara lu dëppawut ak alxuraan mm-hmm. boo demee ci soo ci alxuraan ci sootu Yunus ci aaya vingt cinq yàlla wax ci biir baat aouzu billahi mina shaytaani rajim wallahu yad'u ila daari salaam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim yàlla moo wax ne yàlla woote na ñu wuy ji ca dëkkam àjjana bi ñuy wax daaru salaam sëñ Tuubaa lu muy jëf da koy xool mhm. ñu woo ko ca daaru salaam mu xam fa la war a taxawale ci liggéeyam mhm. daaru salaam doy na ci tegtal maam Cheikh Rafa la ko sàmm mhm. moo taxaw àll ba dooy na ci tegtal Serigne Modou Moustapha fa fala feeñe dooy na ci tegtal Serigne Fall Awa Bousso mi ñëpp yéem fala la feeñe mu joxal ko boppam rafaatal ko maam seex Anta loolu pas-pasam moo ko may tukki boobu yi ngay wax maam Cheikh Anta moo njëkk a walanteeru fekk Serigne Touba Gueye fekki ko ba mu jaral mu fekk ko ba gabon hmm. li faaw ma gis sëriñ Touba hmm. Hmm. keroog ba mu ñëwee li ko sëñ Touba njëkk a wax lu waare la ba tey sëñ Touba ni ko ma ni ma toogee woon nii maa ngi nii féete penku nii ma tooge rasulullaay la toogaloon ci lal bi rasulullaay moo ma wax ni Seex antaa ngi ñëw ci rasoululaay moo ma wax ni naa defar sama toogin ndax Seex Anta ngi ñëw rasoululaay moo ma wax ni yow Seex Anta nag ma téyel sama zahir man sëñ Touba te man sëriñ Touba ma téyel la sa baatin te moom rasoululaay ma téyel ko zahiram te moom rasoululaay mu téyel ma sama baatin loolu ko sëñ Touba rasulilaay nee na naa ko téyel man sëñ Tuubaa naa téyel rasulilaay baatin euh, zaayiram moom rasulilaay mu téyel ma sama baatin mhm. te yow Seex ma téyel la sa baatin nga téyel ma sama zaayir sëriñ Tuubaa mhm. zaayiri sëriñ doy na sëkk loolu doy na sëkk mhm. keroog it sëñ Tuubaa kon looloo tax sëñ bi daan wax maam Seex ci yéen jaxasoog bànneex ngeen di kawee fa yàlla man keroog ma taaree xam bis ba Seex Bamba ñëw Daaru muy bis ba ngir Bamba mas na ni ma sëñ Gaawane wax ak sëñ Musaa Ka ngir Bamba mas na ni ma yaag borom saam yéenay samay safaan fa kay borom yi jaam mm. ngir yéen ci bànneex ngeen di yéege fa yàlla mm. ci jaxasoo ngeen di kawee fa yàlla mm. man bamba nag wéet nattoo ki balwaa ak i naqar dem naa galwaa sëñ Moussa wooye mm-hmm. nga gis ni kon mu joxaat ko tam at mooma la mu taalifoon lépp sëñ moom la ko jox mm-hmm. Mm-hmm. ni ko téere yi ma taalifoon ci rasulullah yi lépp jox naa la ko mm-hmm. demal moolal ma ko moo njëkk a mool xasaay moo njëkk a mool xasaay dollu xasaay te ko moolee sëñ Tuubaa nee na ko ni nga ma bette ci mool yi yàlla na la ko rasulullah bette yow man xumóol te bisu giim ba ñëppee dale yàlla na rasulullah bette yow seqanta moo ko moolul sëñ Touba bokk na ci ay kéemtaan yoo ci foofa sëñ Touba ni ko lal bi ma toogoon ak Rasulullah jox naa la ko addi xam ngeen ni maam Cheikh Anta yoroon lal ba mhm. indi ko bi wéyjuram soxna Anta Ndiaye wàccee liggéey ci lañ ko teg mu mel ni jant ñu yóbbu ko déqale mhm. lal baa nga ba léegi Daaru Salaam robaaluñu ko moom nag am nañu ko jàpp mhm. waaye lal baa nga Daaru Salaam ni koy ziyaare te loola xam ngeen ni sëriñ Touba ko rafaatal dëgg la kon moo fekk sëriñ Touba géej Valentin sëñ Touba wax na sëñ Mootloo ni ko bi mu ko njëkkee nuyu ca ba ko fekkee moom it mu mm-hmm. dagana da ko nuyu sëñ xam nga moo dem maam Cheikh sëñ bi laaj mu naa ko namm naa Cheikh Anta na ñëw mm-hmm. ci ko maam Cheikh Anta walanteeroo fekki ko mm-hmm. mu joxal ko xéewal yooyu yëpp ni ko yóbbul ko murit yi mu taxawal taalibe tasaare xasaa yi di ci alalam mool mm-hmm. ko mm-hmm. bokk na ci lu rëy mu defal Serigne Touba mm-hmm. dugg ba ci Madina tiim Rasulullah fekkoon ñuy defar pavillon bi tiimoon Rasulullah mu ni pavillon bi laa euh, bëgg ñu xayma ñaata lay jar ma jëndal ko Serigne Touba moom la war a tiim bu jógee ci Rasulullah rek Serigne Touba la war a tiim yaa fab pavillon ba fa Rasulullah yot ko Serigne Touba ndamul wala yaa jiim ra dem minam dem Arafat yaa sànni jamra doo nga mar wa tax sax da ngay xool ñoo ñëpp ma yóbbu muy loolu dinañ ci dem ci kanam ci 28 bu ñu demee ci aj màkkaam ñoo ma ànd ak sëñ Fallou njaboot geek ak doomam sëñ tàkko ba dañ dem ca lool mm-hmm. daan ci ñëw ndax loolu gannaaw sëriñ bi waaye xam nga bi fi sëñ bi e, nekkee ci liggéeyam boobu itam jógewaat fi dem gànnaar ak nekk fi Ceyeen mm-hmm. yooyu yëpp ak njaareem mm-hmm. maam Cheikh yemul woon moom yamul woon ci liggéey bi mu doon liggéeyal sëñ Tuubaa ci ci jëmmi sëñ bi ci boppam ak ñi mu bokkal sëñ sëñ Mor Anta Sali taalibe yi waaye digganteem itam nitu lislaam yëpp ci biir Sénégal taxawaay bi nga xam ne maam Cheikh amoon na ci maam Cheikh Anta laal ci tuuti ma sogaa ñëw sëñ Ablaye waaw taxawaayam mooy uh-huh. ci niti uh-huh. lislaam yëpp niti lislaam yi ku ne xam na ni uh-huh. délégation yi daan dem ci kër diine yi du ci bari sëriñ gaawaan naka daan jiite moom la sëriñ Tuubaa daan yónni moom sëriñ bi da ko doyloo woon ci léppam li nga wax rek sëriñ bi ni ko teel ma sama saayir loolu doy na tegtal doy na wax ci lépp waaye eh, li ci gën a kemtaane mooy Serigne tubaa nee nañ Serigne Gaawaan du ko musaana jub la muy wax ci wala mel mooy hmm. wa maa tawféex yi ila billah loolu nag tawféex la ci ñun ñi nga xam ni hmm. ay jaam-jaamaati Serigne Gaawaan lañ hmm. tawféex la ci ñun ñi ñun ñi ñu njabootu Serigne Gaawaan tawféex lañ ko jàppe kon euh, Serigne Gaawaan diggante relation am ak euh, këri diine yi mooy Seydil Hadji Malick mbokk ma ndax li nga wax léegi dëgg la ah, Alaaji Malick Mati Mbàkke Cerno Farimata Alaaji Malick Maam Ousmane Mati Mbàkke Cerno Farimata Maam Maaram Alaaji Abdou Aziz ngañ euh, euh, alaaji soxna si tudd ngañ xariñang mm. mbokk ma mm. te ak mbokk suñu borom wax ni ku ko jokk mm. ma euh, ma jokk la waaye ko dog ñu dog la rawatina moom l'islam ni sëriñ ni nga xamee ni sëriñ Tuubaa ëpp na tarixa l'islam ko taxoon a jóg te moom lépp lépp loo xam ni daana doon liggéeyub sëriñ Tuubaa danaan nangu ba kenn du ko ci man looloo waraloon kër diine yëpp doon ay wëllëreem cene ba soo demee ñaseen bari na ay turandoo yoo xam ne sax mm-hmm. maam Cheikh Anta daan na ko am ci biti mhm. ak ci këri diine yi ak ci Afrique ak ci monde entier mhm. ndax dafa teel a doon koo xam ni mhm. maanaam dafa ubbeeku woon ci lépp dafa dafa dafa dafa amoon ouverture ci lépp dafa amoon relation ci lépp te relation bépp wane Cheikh Ahmad Bamba wane liggéeyu Serigne Touba noona loola loola la ci jublu woon loola doon mission fu mu musa dem kem kéemtaani Serigne Touba. Serigne Touba lay waxtaanee. moo tax Serigne Moussa Ka ni ko seexanta Serigne Touba la defar nga nga doon exemplaire yoonu murit seexa taxoon ñu xemmem yoon wi li ma la wax léegi. Tijaan ak murit ak xaadir ak ñi ci yoon wi Serigne Moussa Ka ko way soo bëggee xam Serigne Gaawaan ci relation ak li mu ak ak li mu def. yëral Serigne Moussa Ka. lu ne wax na ko lu wax na ko Serigne Serigne Gaawaan. xam naa ne ba daan teewal sëñ bi ci xew-xew yu am solo. ndax 1922 euh, bi nga xam ne Seydi El Hadji Malick wàcc na. moo Cheikh Anta waaw moo ko jiite woon <laughs> waaw 1922 bi fi Seydi Alaaji Malick wàccee liggéey mhm. mhm. mhm. la sëñ ñu dem fekki sëñ di ngeen fa dugg te kenn duñ réglé ma sama mbokk mi Seydi Alaaji Malick tey ci fukk ñu war naa leen ci aljana booba ca la maam bokk ba nu ñëwee jëf jëm fa jëf sëñ Moussa Ka wax na keroog ba alaaji mu siiw ma Malick mhm. faatoo tiwaawan kooka moo di saalik mhm. seex anta dem keroog la seex sëñ bamba yónni siidi anta mhm. mu dem ko jaale romb kër buukunta keroog ñaar fukki nag la dàq yut leen da ngay xool loolu ñaar fukki nag ñaar fukki nag la dàq yut leen téeméeri saako ceeb la boole jox leen boole ca xaalis boobu mënee su koo lim mhm. gis naa ne Cheikh Anta Mbacke yaay borom ndam da ngay xool ji wax mhm. loolu yóbbu Tiwaawan ca mhm. yooyu jamono 1922 keroog Tijaani Tiwaawan dañoo booloo di yuuxu naan ko Cheikh Anta yaay kenn dundal ko mbooloo loolu def na ko Serigne Moussa Ka ko nettali moo ko nettali boo demee ci téeram bi gis ko la mu def Cenaba mu ni la Cheikh Anta defal waa Cenaba moo gën sarax moo gën cangaayal Cenaba dëgg la ndax booba mm-hmm. kon ñu ngi ziar mbooleem njabootu maam Cheikh Anta di ziaraat bu baax mbooleem njabootu Cheikhul Khadim ndax genn njaboot gi la di ziar mbooleem njabootu l'islam gépp ndax benn njaboot gi la màggal gi itam seen màggal la mm-hmm. incha allah kon ñun ñëpp rek ñu fas ko yéene gaaw bi nga xam ni ci lañ jëm muy gaaw juróom-benni fan ci weer wi nga xam ni mooy euh, weeru novembre kon euh, lii daal la leen seen télévision Futurs Médias indiloon ngir nafa tuuti rek ci li nga xam ni mooy dund maam Cheikh Anta borom gaawaan waaye fàttalikuwaat tuuti itam jàmbaaru lislaam jooju nga xam ni moo di Cheikhul Khadim nga xam ni lii yëpp moom moo ko waral mm-hmm. kon ñi ngi santaat bu baax ñi nga xam ni ñoom lañu comité d'organisation màggal gi boolee loon ñu am ci mbégte lool ndax ñu yàgg nekk suñu ay xarit yàgg nekk itam suñu ay soppee di maam Cheikh bokk ci kër gi léppam di kër gi ak sëñ Abdoulahi Diop mafaatixul bichi bi ñu koy dàkkantale rek doy na sëkk wax dëgg yàlla ñi ngi santaat bu baax di leen gërëm di sant ñi nga xam ne ñoom lañu ñu àndal itam ci réalisation bi euh, sëriñ Laasana ak ñi mu nekkandool ci régie ba ku mel na sëriñ Bamba ak euh, sëñ Muntaga di sant itam ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal ci ba ngeen mën a jàkkaarloog ñun mu di sëñ Jibilaay Diop ak ki nga xam ne mooy sëñ Pape euh, Ndiaye itam gisoon naa ko fi di sant itam ki nga xam ne moo di man Mansour Guèye mi nga xam ne moo tax ngeen mën nu dégg bu baax a baax kon euh, ñi ngi santaat euh, groupe euh, Futurs Médias gi jàpp ci lii xam ni itam bis yu mel nii seen wàll la ñu xamal ko waa Sénégal xamal ko waa àddina bi mu nekkaat jàng nekkaat nafar bu mag ci ñoom kon ñu ngi leen di santaat bu baax di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.